ñi ngi jaajëfal bu baax a baax sunu partenaires yi nga xam ne saa su nekk rek ñu ñuy bàyyi xel bu baax a baax fii ci Fall 94 Walf Sénégal ku ci mel ni Lamp Fall électronique nekk fële ca diwaanu Maroc ci dëkk bu ñuy wax Rabat Eh, di yëngu ci wàllu commerce si jënd ak jaay ki bëgg télévision yaañ yi macha allah téléphone lu mu mën a doon rek accessoires yi yëpp moom du koy jaay fële ci diwaanu Maroc ci njëg yi yomb ah, kan nag Lamp Fall électronique yàlla na si jàmm yàgg Assane Mbaye duñ la fàtte benn yoon yow it bokk nga ci ñi nga xam ne ay sunu partenaire saa su nekk ci jamono bu nekk ci waxtu bu nekk. moom it ku nekk xam na ko ci njàmbaar tem ak ci léppam képp koo xam da nga am ay bagage yu nekk Maroc boo ko joxee incha allah dina ñëw fii ci Sénégal ci nu mu gën a yombe kan nag Assane Mbaye yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi nag présenté benn produit boo xam ne produit bo am solo la mooy produit Super Life Super Life nag nekk na produit boo xam dafay Eh, ah, maanaam dafay yokk sa wér yaram macha allah te dana la aar ci sa yaram ci say dina la aar tamit ci ay gàllankoor yoo xam ne wax dëgg yàlla lu jëm ci wàllu ndaw ndawaan yëpp maanaam daanaka mën naa boo jëlee seen produit rek daanaka mën naa dina ci aar bu baax a baax super life nag ku ci bëgg a xam tuuti rek maanaam boo duggee ci Euh, Google bi boo bindee super live santé incha allah boo ci bëggee documenté wala nga bëgg cee xam rek incha allah da nga xam bu baax a baax a baax baax ku ci bëgg adhéré nag wala nga bëgg cee bokk nag ñoom am nañ groupe nekk fii ci Dakar euh, yaakaar naa ni euh, groupe bi macha allah ñiy yëngu ci super live ñëpp a ngi ci wax dëgg yàlla mu nekk nag wax dëgg yàlla loo xam ne ni lu am solo la kon nag gaaw leen ngeen daw dem ci super live santé baax na lool maanaam kafe gi rek macha allah. voilà ñu ngi leen di siyaar nag di leen nuyu lu bëree bëri di dellu si rek di wax ne rek Sénégal moom euh, sunu Sénégal la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di xàccandoo di dóorandoo rek développement la ñu wax rek développement moom bu ko waxee kenn ku ci nekk rek da nga cee war a gis sa bopp bu baax a baax kenn ku nekk da nga cee war a dox wax ci euh, def ci bu baax a baax a baax a baax ñu yéneen te jàmm taxaw taxawaay bu mat sëkk ngir réew mi avancé ngir réew mi dem yoonam euh, gis nañ benn maire boo xam ne nag macha wax dëgg yàlla acte yi muy def ak li muy def macha rafetlu nañ ko te bëgg nañ ko te jàpp naa ne bu ñëpp defee rek ñu bàyyi coow li yaakaar naa ne Sénégal léegi mu dem yoonam waaw ndax wax dëgg yàlla li ko tax a jóg ak euh, bëgg gi nga xam ne bëgg na ko Sénégal moom mu ngi ci muy Ousmane Sonko yaakaar naa ne gis ngeen ko kan nag na ko ñëpp def maire yëpp amul kii amul kële képp koo xam ne de fal nañ la maire rek li ci des moo di liggéey daal jaaxaan di nelaw moom jeex na daal di dem ci ay avion réew dañ ko war a liggéey parce que li ñuy demee ci yeneen réew yi di dagg ci ay di dem ci ay hôtel di di def ay recevoir di di di di di fare foofu xaalis bu bëree bëree bëri yaakaar naa ne suñu deferee suñu gox goxaar yi nekk ci Sénégal Sénégal neex na de ñu defar ko ba mu rafet wax dëgg yàlla yaakaar naa ne jërutu surtout ñuy dem ay dem lu dul rendez-vous yoo xam ne yu jàmpulaak yooyu noonu pour ñu mën faa dem ay dem pour noosi ci yeneen dëkk parce que dëkk yi dem di noosi daanaka boo delloo ci ginnaaw bu njëkk daanaka kenn daw fa te tey kenn ku ci nekk yaa ngi xëntewoo dem foofu noonu dañoo liggéey seen dëkk yooyu noonu macha allah dañ koo liggéey dañoo volonté taxawu jàpp xam ni Euh, liggéey sa réew rek mooy li wër ndax boo ko deful da ngay des ginnaaw te chaque jour rek da ngay jël sa xaaj di ko fere ci réew yooyu réew yooyu di gën a yow sa réew di gën a dellu ginnaaw loolu tamit nañ ci taw xool fu mel ni Linguère nga defar ko ba mu rafet xool fu mel ni Casamance xool fu mel ni euh, euh, Saint-Louis xool fu mel ni fii barab yi ñu war a mën a defar ay barab yoo xam barabu noppalukaay la nekk fii ci Sénégal macha allah bari na bu ko defee nag dem ak dikk bi macha allah yomb mu nekk développement boo xam dina gaaw lool waaye loolu day fekk nag ñu bokk day bee ŋaayoo bi yëpp ñu teg ko ci suuf te xam ne loolu jëmul fenn ñiy coow ñëpp ñu xam ne ñoom amuñu argument rek amuñu argument ndax képp koo gis muy coow waxul ci xam-xam waxul nu boole yaakaar naa man jàpp naa ne wax dëgg yàlla sax xam-xam des na daal waaw kan nag nañu fexe rek ba réew mi avancé ñu dem ku ko mën a avancé rek baax na ndax ñu ñëpp ay sénégalais lañ yaakaar naa ne fi mu toll ak vingt et unième siècle ak 2022 bi ñu toll ni lu baree bare war nañ koo dépassé daal ci ay coow ak ya ci aju noonu liggéey rek ndax liggéey rek moo wér daanaka li mu déclaré ak li mu wax ndaw ñi loolu lu yanu maana la te lu baax la te réew yi développé yëpp foofu lañ jaar ndaw ñi faaw tamit ñu am engagement bu mat sëkk faaw tamit ñu nangoo génn seen ñaq di ko def ci réew mi faaw tamit ñu bañ a tee nekk di xaar ay état yooyu noonu ñu liggéey bu keroog bu ko defee ne état li ko war cim réew cim mi du ko war a def bu boobaa incha allah rabbi dana ko def léegi nag bu ko defee Euh, ñu bañ a xaar kenn nekk kenn ku ci nekk nekk ci la nekk rek bu ko defee rek yàlla nañoo dimbali daal voilà kon nag yaakaar naa ne euh, lii nga xam ne ni moo di Sénégal wallahi lancim dafa war a dem dafa war a avancer te dafa pour temps Sénégal pour mu avancer lu gaaw la parce que Sénégal Afrique Afrique de l'Ouest Afrique de Centre Afrique yëpp a ci yam ñëpp dañ koy bàyyi xel parce que tamit ku nekk xam ne Sénégal am na luñ koy xoole am na luñ ko luñ ko respecté mais du jëm mi dëkk bi moom waaye am na luñ leen respecté lan la seen comportement seen civilisation ak seen euh, respect bi nga xam am nañ ko ak yar bi nga xam mi ngi ci ñoom am nañu yar parce que li problème bi mooy di nag bu dee lu jëm ci wàllu liggéey ab dëkk yo si aju loolu moom dañ cee tardé ndax boo demee fu mel ni Maroc boo ñëwaatee Sénégal xeeb Sénégal boo demee fu mel ni Afrique Sud boo ñëwaatee Sénégal xeeb Sénégal boo fu mel ni tey ji ay Rwanda boo demee foofu boo ñëwaatee Sénégal da ngay xeeb Sénégal kon loolu des na kon liggéey bi lu mu gën a gaaw rek li ko li koy li koy def nag moo di ñu bokk nday bokk bàyyi di xaajandoo di dóorandoo ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax Fall 94 Walf Sénégal analyse corona yi nga xam dañ leen koy defal lii leen leen indil